xanaa rek di gën a soññ sama bopp di gën a soññ sama bokki taalibe di gën a soññ bokki jullit yépp noo ngi ab noo ngi noo ngi toll ci ab tolluwaay boo xam ne il faut que ñu delloo ñu sant ki nga xam ne ci bopp réew mi ak ñi mu ko àndal ci taxawaay bu ma sëkk bi nga xam ne taxaw nañ ko seeni wàll seen kem kàttan soññ gi may soññ sama bopp nag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 lu ko waaye wax tooñ ko su ci tollu ndax suñu boobu mooy def mooy dindi korona suñu boobu danoo sàkk sàkk ko lu ko waaye wax tooñ ko muy wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa nun kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne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 sëriñ bi te fas yéene rekk nekk rek ci li mu nekk loo muy li nekkoon rek ak lu nu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax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 lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa mu sa mu sa jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yàgg ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci mépp mbir kon li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci liñ bëgg doyloo ko ci lépp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 وحق الجن والإنس إلا ليعبدون لو رك ضينا سنج بي موم لولو كو في اندي وون موم لا في نيكي وون بولا سي نك دي جيندي جامي تي سين بروم دي ومات جيمالي سين بروم سنج بي رك لا في نيكون لولو كو في اندي سي لول رك لا نيكون kon nag ñun sant rek lañ war a def sun borom mi nu boole sëriñ bi sant sëriñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp ñu baloo xaq ñépp di ñaan ñu balonte xaq loolu nga xam ne mooy sunu mooy sunu liggéey buñ ca nekkee ak ak jariñoonte rek moo ci juddoo ak ku laabiirante ak ku dimbalante loolu rek moo moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax

taxaw tem ci li ñu fi andi muy jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp eh, di ñaan sunu borom ci mbaaxu sëriñ bi eh, tolluwaay bii nu toll eh, mel na ne tiital na ñépp waaye dan waaw nu ñaan suñ moroom yépp suñ mbokki jullit yépp suñ mbokki taaliba yépp yàlla daqal nu ndawam loolu nga xam ne du def luñ ko digalut te fañ ko yem loo mu yem fa waaw waaye du tee nu ñaan ndax ñaan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 noo ngi sant bu baax a baax a baax eh, kàddu yi da mënut ñàkk waaye eh, sunu xel dal na xam nañ ne jaamu yàlla mm, moo moo moo yombul waaye mel na kenn ku ne ci ñun mu ngi ciy def kem kàttanam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 waaye nag alhamdulilahi rabil alamina mën na noo am xel su xel mën na daal mën naa daal bu baax a baax a baax ndax sëriñ bi ah, sëriñ bi moom li may wax ne rek dañ ko war a jéem ba xam waxtu wu nekk di ko jéem a dund lu nu ko gën a xam gën di jege lu ñu ko gën a dund di gën di mucc di gën di raw kon ñoo ngi sant bu baax a baax te xam ne eh, gis nañ taxawaay yi li li li li ngeen ci man lépp def ngeen ko waaye su borom moo demee noonu te sëriñ bi it euh, kenn mënu ko roy kon noonu ci diggante boo xam ne euh, xam suñu bopp xam suñu warteef di ca góorgóorlu suñu kem kàttan loolu rek moo ñuy dimbali dund bari na gàllankoor lool ay ay xat-xat kon dañu ñaan rek su borom gën loo gindi ci boppam gën loo gindi it ci sëriñ bi nuy gën di mën a wéetal yàlla di sax ca dàkk di gën di xam sëriñ bi di ko gën a dund yàlla na ko suñu boobam ngàttandoo ci biir ak bitti ak tey ak ëllëg jërë ngeen jëf ñu sant bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf